jur yan jumtuwaay la ñuy mais day baax rek nga expliquer lan mooy planification familiale. asalaamaaleykum d'abord di nuyu téléspectateurs yi di nuy son bàjjen Tata nga xam ne yàgg ñoo liggéey ensemble. je peux dire je dirais que moom moo bokk na ci ma daal centre santé wàq naan géej waay. Mhm. ba tey ñu ngi liggéey di rafetlu invitation bi ñu ngi koy invité mu wax planification familiale dina yomb. Mhm. parce que instant bi actualité la. planification familiale mooy juste méthode ñuy utiliser pour juste soreel li nga xam ne mooy njur. d'accord mooy li nga xamante ne ay jumtuwaay la dañ koy utiliser pour sori njur. mais si jumtuwaay yooyu noonu est-ce que am na mun nga ñu expliquer différence yi ana naka lañ koy utiliser yan mooy différents types jumtuwaay yi nga xamante ne mën nañ koo sarloo di ko di ko utiliser ngir sori suñuy njur. nettoyage ñu utilisé d' abord am na dafa am ay pàcc. Mhm. am na méthode des jours méthode méthode yoo xam ne méthode kii lay doon wala méthode naturelle lay doon naturelle. naturelle ok mais li ngay parents bi utilisé bariwul te siiwul noonu méthode naturelle en général li nga xam mooy këyit intrompe fi da ciy bokk ci olof lañ naan euh, xaw ma naan laa koy expliqué olof mais këyit intrompe fi da ciy bokk. Mhm. dèjà méthode des jours fii li nga xam ne mooy ano bi. Mhm. ano da ciy bokk bi nga xam ne mooy permis yi euh, jigéen ñi naan course. Mm-hmm. da boole nañ ko ci. mooy kurus maanaam ni ki nga xamante ne dafa war a xam cycle menstruel am. Ah mooy période règle am. voilà mm-hmm. voilà voilà aussi am na méthode yi nga xam ne moom lañu faral gën a utiliser mooy méthode barrière yi. comme ah. li nga xam ne mooy di dispositif intra-utérin bi nga jigéen ñi naan appareil bi. appareil bi waaw li nga xam ne aussi am na piqûre bi piqûre dafa am deux façons. Mm-hmm. benn bi ñëpp ay piqûre trois mois la benn bi euh, mooy méthode mooy fay nga maanaam liquide benn extraint da ngay da ngay ubbi rek indépendant bu ki des euh, butéel bi ak strain bi ñu ànd dañ leen séparé mooy ñaari méthode fii yooyu ñu am am na aussi bi nga xam ne mooy doom yi doom yi dafa am deux façons dafa am doom bi nga xam ne euh, kii lay def euh, dafa nekk weex am moo xam ne weex la ak xonq lay lay lay kii weex la ak xonq deux la voilà gën a comprendre méthode am na bi nga xam ne mooy beneen bi beneen aussi dafa am deux façons dafa am inflation ak ak ak kanel d'accord kon euh, su ma la su ma la déggee kon ci say biir wax mooy euh, li nga xamante ne mooy méthode dafa am différence dafa bëri façon yi nga xamante ne moom la ñuy defee planning voilà moom la ñuy utiliser muy comprimer bi comme ni nga ko waxee muy injection bi wala sax li nga xamante ne mooy brin bi comme ni nga ko waxee voilà xam naa ne dinañ ko gën a yaatal parce que mm-hmm. day baax saa su nekk rek euh, ñun ñu jigéen ñi ñu leen leeral li nga xamante ne mooy mooy kay bi comment dirais-je euh, comprimé yi mhm. temps bu ñu koy naan nan lañ koy utiliser ak bu si nekk différence bi mu am loolu dinañ si ñëw tey ji mais tey ji bàjjan yow en tant que euh, yaay en tant que bàjjanu gox euh, tey jii nii wax du ma wax sax en tant que bàjjanu gox déjà mais en tant que nit jigéen planification familiale boo ko déggee lan la sa xel di dem directement. jërëjëf maa ne hmm, suñuy wax planification familiale dañuy wax ci jigéen mooy na noppalu. ndaxte jigéen li ko li ko war dafa bëri xam nga ne diggante ëmb nga wasin mooy imbi nàmpal ñaari at ci diggante bi boo ci ëmbee day metti bu docteur ñëwee ne la ah ay jumtukaay kat a ngi nii tey war nga mën a ëmb imbi toog ñaari at ba ñett ba ñeent noppal sa biir noppal sa biir nàmpal sa doom ak wenn ñaari at doo ko mën a nax sa jëkkër mm-hmm. doog a ëmbaat yaakaar naa ne loolu doomu aadama yépp dañ ci war a d'accord mm-hmm. waaw d'accord euh, comme tey ji ni nga ko waxee danga war a noppalu comme niñ ko suñu yaay di waxee tout le temps mm-hmm. euh, nef baaxul xam naa ne docteur dina si ñëw indi si conséquences yu nekk et tout mais tey jii ni dafa am li nga xamante ne ñu bëri dañ koy euh, sénégalais yi dañ koo tàmm mooy jigéen femme au foyer la war a nekk dafa war a jur te wax nga ko sànq si say biir wax da nga war a noppalu noppalu boobu yéen en tant que mag ban façon noppalu ngeen ni wax pour que ñun xale yi ñu mën a comprendre. waa su ñuy wax noppalu mooy ci lislaam la jëkke suñ jëlee ci diine chrétien tamit dañ koy wax na dañ ne xale nañ ko nàmpal ñaari at. ñaari at. ñaari at suñ ko waxee mag yu jëkkee dañoo amoon jumtukaay mooy ku wësi naan tey buñ la ngéntee bu ngoonee sa yaay dala yóbbu këram. Mm-hmm. nga toog fa ñaari at dijjal. noonu lañ naan wax dijjal ko for fori tànk dijjal lu ci ëpp sax dañuy wax. dijjal mm-hmm. ba sa doom dëgër. Mm-hmm. biir bi mën a wér nga mën a ñu ruyal la. dàmp la toppatoo la nga mun a noppalu nga mun a dellusiwaat ci kër gi loolu nag tey ji xale bu mel ne yow moom su ma la ko santee nga bañ doo nangoo bàyyi sa jëkkër ñaari ñaari at doo nangoo bàyyi sa jëkkër juróom-benn weer bu planning ñëwee rek mooy sorante njur rek dañuy daal di d'accord ak ñoom ci loolu. mais tey jii nii euh, docteur lu bàjjen wax am na solo mais comme lu nga ko waxee sànq euh, yéen ñi di di accueillir li nga xamante ne mooy les femmes mariées. Mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. tey ji wax na ko nee na da nga war a sauver sa njur war a euh, def lenn li nga xam mooy waxtaan. Mm-hmm. ak sa yaay noppalu dem këram noppalu ji comme ni mu ko waxee dijjal bi ñuy wax dem noppalu defaraat sa yaram mais boobaa da ngay sori sa jëkkër parce que doo nekk ak moom. est-ce que yéen ñi parfois di ngeen. waxtaan ak seen i patiente mhm. pour que ñu noppalu dem comme ni ko bàjjen waxee dem ci seen kër yaay yi noppalu defar seen yaram sori seen jëkkër pour que ñu sori seen ñoom. waaw loolu on peut dire que avant avant la amoon. Mhm. mais maintenant mën nañu wax ni daanaka amatul. Mhm. parce que jigéen ñi léegi en général ma waxee naan damay sëy sama jëkkër laa nekkal donc duma dem fenn sama kër yaay may toog sama kër ja te léegi day gis sëy yoo xam ne en général day sore day dangay par exemple dangay dangay nekk pongole mi. ba pare sëy sëy Dakar. a relation à distance voilà mënoo à chaque fois ngay déplacé wu di ñëw di dem moo tax ñu créé méthode planning laa pour juste à saint la xam nga des fois dañ naan ñaari at ñeenti at ñaari at lañ war a nàmpal sa doom ba mu dëgër nga daal di mën a ëmbaat mais léegi wér gi moom mateetul moo tax ñu wax trois ans mooy ñaari at yi war a nàmpal sa doom dëgër benn at nga sa yaram ba sa yaram bu baax ba nga xam ne moo ëmbaatee li nga mën a nekk ci jàmm. mais est-ce que loolu noonu yéen en tant que médecin yéen a ngi dem si euh, yéen a ngi waxtaanee seen patients yi di leen ne carrément pour assez que ñu toppatoo seen bopp parce que aussi nii euh, yaa ngi ko doon wax sànq si say euh, kàddu yu njëkk nga ne dafa am planning dafa am ñaari pàcc. Mm-hmm. moderne ak traditionnel. Mm-hmm. nee nga traditionnel bi nit ñi farataaluñ ko lu bëri. donc bëgg naa tamit nga leeral askan wi li nga xamante ni mooy la pourquoi carrément farataaluñ ko est-ce que si ku jigéen ki la wala est-ce que si ku góor ki la parce que buñ ne mariage góor ay jigéen donc buñ ne planning duñ ne jigéen kese parce que ku góor ki tamit dafa mel ni am na ci wàll. waaw boobu en général le plus souvent je peux dire que ni góor ñi la parce que góor gu góor en général bu takkee jabaram day wax a toog fii ci man. te léegi y a des jours comme sama mbokk ñaabu ñaabu nii mu toj la tuuti ñoom dañuy engal ah, naan su ma la takkee jabar sama jabar la dafa war a togg fóot passé def comme avant naan def rek yooyu noonu moo tax engal ah, léegi jigéen ñi dematul dañuy toog léegi bu ñu amatee bu ñu amee doom sax seen goro naan moom mooy téye xale mooy toppatoo xale moo nekkoon yoon bi ngay jaar sa yaay sa daanaka dootu dootu dootuñu am yoon moo tax. d'accord moo tax moo tax dañuy farataal méthode traditionnelle bi. mais méthode ñu wax carrément yan façon la. c'est-à-dire méthode traditionnelle bi yan façon méthode traditionnelle moo am ci planning nan lañ ko mën a defee yan pàcc la bu ko defee nit ñu mën koo xam ki nga xamante ne bëggul jël pilule par exemple lan la mën a def ci méthode euh, naturelle bi mooy traditionnelle bi ñuy wax mu mun koo xam utiliser ko sans mu naan ay garab parce que nekkul ne ñëpp tamit ñoo bëgg naan ay comprimé dëgg la mhm. dëgg la moom méthode traditionnelle mën mën nañ ci mën nañ ci am comme di jël laaj nga di sànq budul boobu comme léegi daanaka kenn defatu ko am na jigéen koo ñu booyee naan sama jabar du naan pilule mm. sama jabar du pilule mun nañ def euh, comme euh, méthode euh, bi nga tuddee sànq mooy kii bi méthode kii bi. Mm. allaitement exclusif. waaw la méthode bi. Mm-hmm. comme méthode allaitement maternelle exclusif yi nga xam ne dañuy nàmpal te duñu jël te duñu gis règle en mën na la aar ba juróom benn weer des fois mag di naan sama suma nàmpal dama gis règle ba ñaari at am na amaana am na. mais nàmpal boobu tamit dama ciy taxaw nàmpal boobu noonu ban façon nàmpal la parce que tamit euh, da ngay gis nga xamante ne tey jii nii da ngay da ngay ñëw benn jeune nga gis ko mu nekk di liggéey bu xëyee day nàmpal doomam. Mhm. bu nàmpalee doomam bu xëyee dem ba ko ak yaayam. Mhm. bu ko bàyyee ak yaayam wàcc ñëw di ko defal ay biberon mu naan est-ce que nàmpal boobu la wala ban façon nàmpal la. parce que tamit foog téléspectateurs yi ñoom si jëm xam ñu xam. carrément ban façon nàmpal la. non de façon nàmpal parce que nàmpal méthode maman wax day fekk nàmpal moo ko normal maanaam espacé nampal bu ne warul espacé de plus de quatre temps. ndax bu dee suba si la bu ne guddi gi la warul espacé de plus de six heures de temps. ok donc da nga koy nampal régulièrement heure bu jotee rek da nga koy nampal sans nga jox ko dara mais soow kese mooy soowu yaay. Ah, ba pare ba pare doo doo ci boole soow. Mhm. biberon doo ci boole lekk. ak ndox doo ci boole ndox ba mat six mois wenn kese. d' accord mais bàjjan bàjjan tamit loolu euh, foog ñu leeral ko tamit si côté euh, mag ñi parce que tey ji yaa fi toogal euh, bàjjanu gox yi donc li mu wax sànq mooy nàmpal bi balaa ñoo jàll si yeneen méthodes yi si naturel yi nga xamante ne am na ko mooy nàmpal si moo bàjjan loolu est ce que mu ngi am ba tey. <laughs> waa maa ne nàmpal maman li ñuy wax méthode maman. yaakaar naa ne loolu dafa jafe pour nit ki mun ko matale mm-hmm. joxe nga benn exemple léegi mooy ki nga xam ne dafay xëy di liggéey liggéeyi mm-hmm. euh, donte day teb tiirle wala day wàcc doomam ñu koy jox biberon méthode maman amatul mm-hmm. parce que am na lu rax nàmpal bi jox nañ ko biberon jox nañ ko ndox jox nañ ko bër jox nañ ko lem méthode maman amatul su fekkee ne ku jigéen ki indisposé na ci diggante ñetti weer juróom benn weer yi xale bi mënatul def méthode mama mooy mm-hmm. su mm-hmm. yaa ji su fekkee ne gis na deret mm-hmm. bu meretam jeexee mooy quarante jours yi. bis bu si toppaat wala weer bu si topp bu ci gisee deret méthode mama mënatul am. Euh, ba tax ne tey jii lu ma la mën a wax rek mooy mooy maane ne méthode mama jafe na lool tey sénégalais yi wala àdduna ñu koy def parce que euh, sa doom doo ko yor yow kese da koy jox sa xarit. jox ko sa am di jaam jox ko bàjjanam jox ko tàntaam jox ko ndijaayam mën nañ ko may ndox à n'importe quel moment ci ci ci kër gi. te loolu yow da lay affecté. te loolu yow mi yaay ji da lay affecté. kon donc c'est normal aussi dogguma la parce mm-hmm. que bon du ma ne sax c'est normal mais dafa fekk ne peut-être est-ce que du euh, société bi nu muy doxee la parce que léegi boo gisee jigéen ñi ñoo fi nekk di liggéey di mm-hmm. xëy di wàcc comme góor ñi donc ça sera difficile docteur tey jii nii loolu ñu koy respecter mais à parce que bu respecté respecter euh, allaitement exclusif bi. Mhm. est-ce que mën na respecter beneen si euh, li nga xamante ne mooy euh, méthode naturelle bi. méthode naturelle bi mën na respecté comme comme méthode collier bi am na aussi. mooy kii euh, cycle menstruel. non non en fait non du na bokkul d' accord boobu méthode collier la. collier maanaam su ma amoon kii bi sax euh, image mën naa ko collier lay doon comme genre course lay doon. waaw Régis bu fekkente ne mën ngeen ñu lijjanti la image bi rek. ngeen teg ko ñu mën ko <laughs> leeral mën ko leeral mën ko gis tuuti méthode collier bi en général comme genre la comme ni ma jégal ci kàddu comme ni ngay werdee rek moom ngay werdee chaque jour. course gi dafay am dafay am yoon day am fenn xonq boo xam ne mooy jiitu mu ne woon yoon bi ngay jaar. moom mooy début bi. mooy début bi baax la sa règle bu excès premier jour règle bi ngay commencé di compter mais boo compter teewul da ngay jël benn feuille boo xam fi ngay fi ngay bind. Mhm. fi ngay bind euh, kii bi fi ngay bind sa date de dernière règle maanaam bis teel laa gisoon sama règle. Mhm. dafa te saa yoo xëyee soo naan lii fi jaaxaan juum naa wala juum moom. soo compté bis ba gis rek ak li nga ak li rek fi gisaa que ni ah maa ngi ci yoon bi léegi nag am na fi ne natal ne la boo fa eggee fii nii da nga war de assurance. mooy nga sa bopp. ba a def benn rapport sexuel. ak ah, sa jëkkër voilà moo tax en général mu am consentement du mari. d' foofu la eh, jëkkër ji di amee solo di ñëwee. si li nga xamante ne mooy côté planning bi. surtout surtout. voilà bàjjen moom wax.